C'est un message d'unité. Nous devons être ensemble parce que nous avons le même destin. Nous devons nous battre pour entamer une nouvelle conquête victorieuse. Il n'est pas admissible que nous gagnions Guédiawaye. Ensemble, si nous en nous le bon exemple à l'ensemble des responsables pour que nous lions ensemble dans l'unité, dans la solidarité, une pour gagner l'échéance du 25 février 2024. Nous devons accompagner les jeunes à avoir de l'emploi, une formation, une insertion durable. Mais nous devons travailler pour une restructuration de nos banlieues, de nos villes. lépp lu am lu rafet lu fu mu gën a rafetee dañ ko mérité dañ ñu beneen mébét lu dul taxawam taxawu population yi donc nañu mobiliser wu ensemble pour que camp bi ñu mu nekk le camp victorieux